ba may naan di bég may neexal jotaay di lii yomb te ma neexa seddale may li sedd lool te neex ma ànd ak cafka te mën a bégle bëgg plus de saveur boisson yi gën a neex maa lay courser mais li kii bii nu mu tudd ah, ci marché bi ñu seetaan mooy kii booy Joola seen kër su booy Joola Joola non booy Joola nga naan gar Joola yow xam nga bay bay kii ngi dem demul du wàcc escalier yi lii maa la ko garage bi ñu bu ndaw bi la jël ngay kii li mu am ci yére bu jëloon valise du gàddu ay valise yi def ci yére waaw ah, kii xamul lu ko jàpp confiance gis nga confiance boobu moo lay defloo ñaari baat ñett nga ni tas nga xanaa xam ne ñu bari seen néegu sëy lii moo tax duggaatuñ ca kër ga boo génnee dootoo dikkaat confiance bari baaxul toog a seetaan ko waaye du romb escalier waaw du romb escalier mooy lan bàyyi kii nga dem a romb escalier kii bu demee léegi nga bàyyi ko mu dem kër man maa bàyyi ba bisub dimanche ma jëli ko bu ma ko jëlee mu gàntu ma ma dee xam nga bisu dimanche képp ku jëli ko tas ku fay. bu ma ko jëlee damay gaañu loolu maa ko garanti. bu neex bi ñëwaatul maa jot dinañ am problème de. xool bu neex bi nga. mais nga bëgg bàyyi mu dindal bu neex bi jógee ko turam ne ay saa bu ñëwaatul tànk yaa ngi basé ci bu neex bi da da laa mën ba tey da laa terminé ba tey. waaw nekkal góor waaye nag. ay saa ay saa laa wax non non waaw waaw kay nekkal góor nga xam ni góor nga l'homme de confiance nga tireur de nga tueur nga lan la mais jeexee. yow wutal ma taxi. yow fan nga jëm heure bi ak guddi gi ana Abba. yooyu yëpp waxuma ko doo mu wutal taxi damay dem. ah damaa xam ne guddi gi nga gàddu saa ah di wut taxi oto Abba bi ne fi booy dem sa kër yaa sax. otoom wutal ma taxi rek. ah déet bu neex bu neex wuyu ma wuyu ma bu neex wuyu ma mbir mi du noonu yaa ngi dégg lan lan moo la miti. Abba laa jotee. ah Abba nga jotee. ah loolu dafa jar ngay ngay banax banaxee ka wut ka jën nii tëddal ba suba guddi na ba suba wutul ma taxi damay dem jëlal otoom bi fan laay jëlee du mun nga dawal jël non non wutal ma taxi bu neex bu neex ak yéen lu xew fi ok ah Aïcha di jëm fan sànq la ma la mu naan ma wutal ma taxi. damay heure bii heure bii guddi gi. man damay dem. non non non doo dem de. Aïcha lan nga jotee lan nga jotee ah, Abba ba war a dem. xam nga nit ku xoolal suukaru mu woon ma ne ko jox ma ma waxoon daf ko pour sama yaay. ma laaj ko ko. waaw mu indil ma a tangaas lu ne wax na ma ko. waaw léegi loolu jar na gàddu bagage heure bi dem waaw wuyu ma rek waaw wuyu ma. dina la jox suukaru koor ah lépp teg ko ci suuf ñun bu la ñaanee xanaa nga mun ñoo may ñun dañ doon génn dégg sa sa baat. Aïcha jeeg bu baax mm-hmm. du yëpp ndamal fay. un deux trois nga gàddu sa valise dem dalay manqué loo dalay ridiculé day tax doo nekk nit abaa sa jëkkër la boo ko demandé suukaru koor mu bañ mais ñëwal ci ñun. wallaay dëgg la bu ñuy kolo kolo ko jox sax dëgg la dëgg sax boo tamee fay. ndamal ndamal boo amee doom yi tamit day fay rek. day fay rek day day répondre ko say doom. waaw waaw wallaay dina ma jox suukaru koor. dina lu ëpp suukaru koor yow. suukaru koor yow boo la ci kii euh, lem. suukaru koor xanaa sax dina wér koor bu jotee mu jox sama yaay suukaru koor loolu lan moo si nekk. loolu ko jox. météo lan la koy wàññi. météo météo waaye négocier Aïcha jigéen day négocier. jigéen day neex deret yow abaa yow xam nga ni abaa naa xam nga dafa yëngu dafa lu sukkur ko écharge kaa dem ci biir xoolal jéeg ndax sukkur ko. ay wuyu ma mbedd baa ngi nii nit ñi sax dañuy dégg. sa bopp kaa ñu dem ci biir. te da ngaa xonk da ngaa xonk mun ngaa génn jomi. wala nga bu fi génn tee rek yow. yow ma fi ba pare nu roog tamaate loqati. waaw boo génnee jomi wala nga jomal nit ñi ah. aco courage cu waxal cu waxal rek te ba oh, eh, confiance nag yow tamit confiance loo gisul ne daa am kuy encouragé confiance cu toogal léegi Clémentine bi teg gaaw na. yéen kii ku ko indiwaat fii. kan moo ko indi ku ñaan yi mu àndal non yéen a may tooñ nag de. Oh, yéen may tooñ daal wax te koo tooñ. yéen may tooñ de ngeen koo tooñ. abaa meloo woon nii de. non da ngeen koo tooñ. sa jëf ji nga jëfee. tey eh, moom ma def yow eh, may may may ñu wax de. yow abaa sa jëfinu tey bii lu ma bett ci yow la parce que man xamewuma la nii. gis nga góor doone mbirim mbàcc rek nga ne sa jabar acca demal ah, moo tax ndax ba nga koy takk dafa neexoon même bu demalee boppam nga nga nga ne ko kaay dil si waatal ndax jigéen dañ koy neexal abaa sax nag jigéen dañ koy neexal ah, jigéen matul yow lii la la ko matul te na tëjub réew ñi bu ñu waxee ne ngeen matul bu ñu xaaral ngeen man sax dañ maa moomul man ba kenn di ma diriger du ma xale bu ndaw góor yàlla laa jëkkëru njëkkante laa. très bien ku ma am jël. waaw waaw waaye moom njëkk kii ku ko am jël. kii daa yem ak keneen kii jeex bii góor bii góor la kii. bii jëkkër bii jëkkër saa yi bii jëkkër ku am loo di wax. bii jëkkër ki da ki da waaye yow yow ngay jëkkër. bii jëkkër ku ko am loo di wax waaye bii jabar ku ko am loo di wax bii jabar saa yi. fii xale bu ne dugg na fi. waaw fii katakuru bu ne dugg na fi. waaw déglu ma rek Aba ak lu mën a xew kii dafa bàyyi ñëpp ñëw sëy ak yow. nga bàyyi ñëpp takk ko waaye rek waaye yow ak say défaut dana engagé. ay défaut moom ma engagé ko. waaw man defanteewu ma nag damaa ñëw rek pour defar. dama lay wax rek. waaw mais loolu yëpp dëgg la mais dama ñëw rek pour defar toppal sa coach bi nga xamante ni puusul paasul. moromam yëpp yor nañu mais moom yorul topp ko rek mu tasala sa ah, sëy. lii mënoon ngeen ko dem régler ci biir néeg bi. huit kilos kenn du yëg. gogot yow ak amicole yéen a ma tooñ. boo leen ma bàyyi woon ma dem kon yegg naa sama kër yaay bu yàgg parce que sama yaay sànq ba léegi mi ngi may xaar woon naa téléphone bu yàgg bàyyi la ma ma dem doo dem de. doo dem jugal dem. damay ñibbi jugal nga dem. neexal bi moo fi nekkul tout ça waaw jëlal say valise nga dem jugal nga dem. Eh, jugal nga dem. damay dem. daa ca xoolal jëlal nga dem jëlal gi. bàyyi jàmm mu waay yow tamit. Eh. ay demal. Eh, demal demal demal demal nga ñibbi. taw nga ñibbi bàyyi. li nga xam ne mu génnee fii yow yaa ci toppat. ah taw sax waxoo dëgg yow. waxoo dëgg wala dëgg. ah waaw wala dëgg waaye doo def naan yow. jugal nga dem rek. jugal te dem mooy lan bay il faut nga xam histoire du sentiment il faut nga am. vraiment toogal. bay mi day nit. teewlu tubaab dama sonn nag quoi. ah yow doo arrangé dama lay jox. dina la jox leneen lu dul ah, suukaru koos yow pour kii rek. kii bu la joxul suukaru koos ñu ñu jox la. dama koy jox. Eh, jugal nga dem sa néeg yóbbaale sa lii sa nga rangé le. dama koy jox kon dana xumb dana dagal. Ah, kon kenn yow moom dina la ray yow. waaw kay dafa koppatem. may def ak so lo lo l'orage yooyu nga sol. Eh, eh, yooyu la jour yi di suuf yow. yow magul nga yow. seytaane dem loolu nag nga xëyee def sa drapeau du Sénégal te defoo ci étoile di kër gi. abaa nag wane waar na sa jukkoy papa wane waar nga sa jukkoy papa nax naa la ay baat la woon maa juum yow man mi ñëw ci yow di la laaj ay conseil man maa juum awa ah man sëy naa. yow amoo xol amoo waay comme yow. waaw waaw lu la am nga jàpp ne ma am relation. xol bu ma xoolee ku ma kaw la déedéet bu ma xoolee ku ma kaw la am naa relation am naa ku ma bëgg. maanaam maanaam yow man maa la laajal yow koo xam ni yow sa conseil yëpp mooy may ko ba tasal bàyyi ko mais bàyyi yow doo jéem a arrangé yow xamoo arrangé xamoo ku bëgg ak ki mu bëgg. mer ñu waxi dënn. góor mooy naqar dëgg te góor laa war a naqar dëgg yow da ngaa nooy yow da ngaa nooy. maa dootu laaj sa xalaat. yow man maa la tooñ. yow amoo ko bëgg bëggoo kenn ah. mais awa mi bett na ma de yi wusuwuñ daal di weex waaye nag lii la waykat ba naan ñaan ñu bëggante waxtu tollu baax mooy li gën parce que am wax nañ dëgg nag dama mosul am relation moo tax xaw ma mbëggeel